millatul islami wariya bihim min baadi xurbatiha mawsulata rahimi diine day tumuranke woon na ñàkkoon nay bokk kenn taxawalu ko kenn amul ci moom yitte waaye bi saaba yonent bi duggee ku mel ni seydna aboubacar seydna omar ibnul xataab ah wala yusalluuna illa fi shiaabi ida وعن إمام المرسلين ورجلا يعرف اليسرين عسر واحد waaye bi sidna omar duggee ci islaam nag aha wa innahum xaraju min baadi kawnihim dujulan wa kaana shi'aabu diini daa darami waaye mawlaana alxaaji maalik itam atayta wa diinu yashku wa huwa mu'taribun wa qumta mujtahidan billahi mustajidan lillahi mawlaana waaw Maodo fekk nga diine mu tumuraanke ci Sénégal di jooy ñu tëral ko bëgg koo rendi Seydou Hadj Malick ne ok tabarakallah yal ñu ko yàlla fayal xataa gadat millatul islami waya bihi min baadi gurbatiha mawsulata rahimina qad ashara naadim bi hada bi hada albayt ila hadisi muslim bada addiinu gariban ay bil adadi wa sayaudu gariban ay bil qiimati fa tuuba lil guraba

ba xayri baalin ak gën ji jëkkër mooy waram ta imi tabaarakallah diine daal bu fi nekkoon tumuranke mel ni jëkk mel ni soxna su jëkkëram dee wala doom ju baayam dee waaye bi saaba yu jógee ànd ak rasulillaay diine mu jële ci loxo yu dëgër am nday am boroom kër ba muy nekk jigéen waaye diine itam bi moo doon ñëwagul tumuranke na woon mel ni doom ju baayam dee wala borom soxna su jëkkëram dee waaye Seydi Hajji Maalik moo taxaw bi saakayil jiddi mustanjidan lillahi yàlla dimbali ba diine itam magfuulatan abadan min hu ci seedu xaaji malik bi xayri baxlin dégg day falam tay tam walam tay bi ba xayri abin tamit yal ñu ko yàlla wa xayri baalin ay wa baalin xayri baalin nag mu am jëkkër juy gën di jëkkër te kooku mooy seydina muhammad fa innahu ashfaqu على أمته من الأب على أولاده وأقوام بصلاحهم من الباء على زوجته mu ne gis nga bàyyi ñi muy amee yitte ak bëgg ñi muy bëgg ay njabootam Seydina Muhammad nu ko raw lañu bëggee ñun xeetam nee na borom kër ñi muy taxawee di sange sàmm soxnaam sécuriser ko taxawu ko noonu lu ko raw la Seydina Muhammad mel ak xeetam yii di ummatu sallallahu alayhi wa sallam ndax boo demee ci téere ba dañuy wax al fawdu wan najaa fil hijrati fil hijrati al fawdu wan najaa fil hijrati ila allah nee na sidna muhammad yàlla daf ko wax ni yowmal qiyaam yow laay bàyyee sa xeet bi seen dossier ah yonent bi ni ko yàlla dimbali ba rek nga nga yittewoo dossier boobu mu ko lu tax mu ko li li li annahum ummati lu tax nga bëgg leen nii mu ne parce que ñii sama xeet nga yàlla yónni jibril li ko yow ma laa yuxzi llahu na amanu maam li xam nga lu xew yow Moustapha segam nii nga mel ci sa xeet wi ah laa nox jik a fiikim mun na fi gàcceel ci ci àllaaxira waaw moo tax bokk na ci xéewal bokk ci xeetu Seydina Muhammad yàlla buñ ko génn yàlla bu ñu ko génne waaw waaye nag jàngoo lañ ci suñu tax si démb bi ci yàlla doon tawat Seydina Muhammad ci Israa wal Mi'raaj ba mu jàkkaarloog boromam nee na ko sa waa kër binduma safara ngir ñoom waaye saa yu ñu xëyee jëf ju leen di dugal safara ci la ñuy xëy yaa ñu yàlla sutura humul jibaalu fasala anhum musaadimahum maa daara minhum fi kulli mustadim mustadami mu ne ay asaabatu waa kër yonent bi aljibaalu ñooy doj ay kal fi salaabati wa sabri aljibaalu fasal laajal rek anhum an axbaarihim ci seen xabaar musaadimahum ña dajee woon ak ñoom ña féerante woon ña féerante woon ak moom ci seen bërëbu xare ya maa daara a minhum min kulli musadami ñoom ñi doon dajeeg ñoom ci xare ba maa daara a lan la ñu gis ay mina shiddati keroog ku dajeeg waa kër yonent bi ci xare ba ñam nga dee te xam nga nit ñi nga dajeel bokkuñu ak yow xaalal jëkkani wal aslu fi lxitaabi lil muayyani wa rubbama bi ji si wa adaka de kon fasal waaw imaamul jëkkani wax na ko ci téeréem ba mu ne al lil xitaabi li li doon cosaan ci xitaab mooy ñu jàkkaarloo ñu taayin ka ñuy wax waaye rubbama oni bi ji si wa adaka wa fasal anhum musaadimahum maa daara minhum fi kulli musadami fasal wala sal muraadu moo xaataman mu ayyanan waxul kenn de ku mu doon rek ku bëgg a xam laajal waaw kay ahlan madina saa'il musadam wasadam addarbu bil jasadi wal musaarim ismu faa'ilin minhu minhu ay min shiddatin wasal xunaynan wasal badran wasal uxudan fusuulu adfin lahum adha min alwaxami mu ne yow mi bëgg a laaj dañ fa saail an axbaarihi wa salaabati ashaabihi wa jaraatihim wa quwwatihim sal xunaynan laajal rek ahla xunayni mu nekk ijaab ala xasfil mudaaf ijaab danaam ala xasfi sifa ala xasfi mawsuufi ala xasfi mudaafi ala xasfi mudaafi ilayhi tabaaraka allahu ñoo yépp nag ñëw na ci alquran mën nañ ci jël benn misaal rek ala alfi sifa waaw xadir bi mu tojee gaal ga ñu ko waaw lu tax nga toj ko mu ne wakaana waraahum malikun yaxudu kulla safinatin ah bu nekkoon yaxudu kulla safinatin rek fa la yam kon gaal gi bu ko bëtëg bu ko bëtul dañ koy nangu waaye mu asaf saalihatin nag waaw ah, gaal gu rafet bu fi rombee ñu nangu ko moo tax ma ayibal gaal ga ala sifa mu wasal nag laajal xunaynan wa kas alil qaryati aani ahli ahla wasal laajal xunaynan wa xunaynin wa waadin bayna wa taif nag wasal laajal badran wa mawdiun bayna makkata wal madina diggante makka madina foofu la badar nekk mu ne boo bëggee xam daal yonent bi ak njàmbaaram ak waa këram laajal Badr waaw wasal laajal Xunaynan waa Xunaynan nee na huwa jabal la bi qurbil madina min ci benn doj la bu nekk ci wetu madina sal ahla hadihi l ama amkina aw sal muarrixi gadwati hadihi l amkina aw sal damana hadihi l amkina wala neexee nga ni sal laajal ñu doon bind histoire dëkk yooyu sal laajal jamono jooju sa laajal ñi nga xam ne ñoo ko dëkkee woon sa laajal ñi nga xam ne ñoo daje woon ak yonent bi waa këram ci badar wala xunayn wala tabarakallahu yawma uhudin laaj leen ñoo ñu kan mooy seydina muhammad mu ne fusuulu harfin lahum adha min al waxami nee ko rek daje nañu ay fee ay xeetu faatu ay xeetu dee yoo xamante ni adha moo gën a mën a jommale moo gën a mën a rey min al waxami ci mbas mbas moom boo ko déggee ku ne xam na mooy lan noonu ah ndax ni teewoon ñu gàmmu at yëpp mooy mbas mu ni mbas mi ni mu gaawee rey te façon bu nekk lay reyee nee na waa kër yonent bi buñ dajeg buñ dajeg yi ñu raw ne mbas daan reyee noonu la ñu daan reyee tabaarakallaahu yéefar yi ci ci seen bu seen bërëbu xare yi al musdaril bii di xumran المصدر بير عمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم من المصدر يدي واي غونيا كو بيزان داجي ويخ موم جاسيا من امدح ماغي تاغ الصحابه صحابه يونتيا المصدر سيوف البيض ني دي واي بوجي سين جاسيا دي واي ويخ المسقوله الى غمدها mooy ñi nga xam ni dañuy botte jaas yu weex tàll nga xam dañ koo daas ba mu weex nga xam ne bu ñuy delluwaat ca mbar ma buy génn day weex waaye buñ ko jàppee ba jàpp yéefar ya bala moo duggaat day xonk cur ndax deretu noon ya sumran baadamaa war a dat ginnaaw ba mu tàbbee mi neen ay daa ci kaw noon ya kulla mas waddin ci mus waddin ci lépp aji ñuul mi neen limam ci aw njañ xolal ñoom bu naan rey duñu rey màgget de dañuy fekk jeune boo xam ne karaw gu ñuul la yoroon am kaltan am doole ñu dóor ko duma ko kulla muswaddin nag wa fi hada dalilun ala anna shajaata dalilun ala shajaati ala shajaati ashaabihi haysu la yarduuna illa bi qatli suudi limami wa humu sub wa humu subbaanu dégg nga day fil gaalib nee li ci ëppoon ci lu ñu rey ñoom déedéet <laughs> maa dem ci xare rey naa paaba ñoom jàpp ñun loolu ndam la dem naa ci xare fekk naa fa jeune mu am kàttan ma duma ko ray ko waaye am na ñoo xam ni am na benn saaba boo demee ca nasmul xasawaat danga ko fekk lii may nettali ci xas ci xista bi waa ji dafa ñëw ci xare bi ci misaal ñu ne xare bi mi ngi commencé neuf heures moom fa la jullee fajar bi mu jullee fajar naafi la ñaar rakka tàllal loxo boromam ni yàlla maa ngi lay ñaan bu ma de bu ñu bu xare bi tàmbalee yàlla na nga ma booleeg yéefar yi ka ca ëpp doole ka ëpp kattan gën caa soxor gën caa metti gën caa ñëw jaasi yàlla kooku yàlla na ma rey ah su ma reyee yàlla na dagg sama nopp yi yàlla na dagg sama bakkan bi yàlla na fu yàlla na but yàlla na yàlla na buccati sama bët yi ñu ne ko waaw tax nga ñaan lii muy damaa bëgg su ma demee ci yàlla bu ne ma say nopp ma ne ko joxe naa ko ngir yow ana say bët joxe naa ko ngir yow ana sa joxe naa ko ngir yow ana say tànk nañ ko ngir yow ah dalika nag ayatul fanaa de aha ñooñu ñoo jàmbaar yi nag humu rijaalu de waaw wa war rijaalu rijaalu mu ne wal kaazimiina bi sumri xatti maa waradat aqlaamuhum harfa jismin gayra munajimi mu ni wal kaatibiina ay wa taa'iniina ak ñi nga xamante ni ñooy aji bind ma def istiaara ndax xam nga xam nga dafa jël xeej bi ni muy dale arc bi ni muy dale ci noon bi ak jaas yi ni koy dóoree mu jël tudde ko ay écriture écriture dangay teg point dabal sa loxo mooy ndey joor wala càmmoñ baaxul te sur ta nag kulan mën naa dem ndey joor wala mu dem càmmoñ waaye nee na jaas yi ni koy téye ak seen xeej wi moom la tudde ay écriture mu ne bii na ay wa tainiina bi sumlil xatti ci xeej woo xamante ni alxatti la maanaam ci misaal bu ñu doon wax ci xeetu dëgëraayu seen xeej yi ñu doon yor mën nañ koo misaal ci yetu kel ah wala yetu dimb na moo dëgëre noonu la seen xeej ñi daan dëgëree mu ne maa tarakat bàyyiwul aqlaamuhum seen xeej yooyu xarfa jismin benn pet wala benn wàll ci aw yaram gayra mun a ajimi ndare tomb nañ ko maanaam seen jëmm ya la ci jàppe ay xaraf comme xaa jiim mu ne araf yooyu nag tomb yañ leen tomb amul benn yaram boo xam ne ci seen yaram ya ndare tomb nañ fa seen xeej yi wala ñu teem tomb fa seen jaas ya waaw walil xajjaaji wa duwali naqlun wa shaklun bil qaraani wa bil xatiini akraamakum gayra mun ajimi nag bu sumel xatti wa sumru jamu asmar wa huwa rimaaxu mu ne wal xattu shajaratun tuttaxadu minhu tilka rimaax mu ne waqiila alxattu mawdi on bil yaman tujlabu ilayhi tilka rimaax min hindin aqlaamuhum nag tabaraka allahu ñu waajal def sàppe yi moytu buuxante bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم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 السلام عليكم ñu àggalee suñ baqiyaat saalihaat ñu jàng fatiha salaatul fatih ak wallahu ak benn bu nekk ànd ak bisimilah rahmaani rahim juróom-ñaari inna anzalnaahu ñu tëjee ko benn peru salaatul fatih daf ko addiyee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu taala ak njabootam maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala ak njabootam ñaana ko kilifa islam bi ñaana koy daawi julit yëpp ak seen njaboot yal na yàlla yokk seen leer yeesal seen yërmande taas ñu seen barke bu jàggalee ñu jàng fatiha salaat fatih ayatul kursi lixlaas falaxeeg naas tëjee ko benn peru salaatul fatih jaamoo ko yàlla def ko addiyee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko sëñ Babacar Sy Mansour yéene wàlla ci njabootu maam Seydi Hadji Malick Sy yëpp yal na yàlla guddal seen fan dolli seen wér liggéeyu jumaa ji mu tàmbali yal na ko yàlla yeggale ci loxoom ñu fekkee ko jaamu ci yàlla at yu bari di jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waa mbokk yi ñu wëlbatiku rek toog bu jekk ñu dellu ginnaaw tuuti la ñu wax nañu dellu ginnaaw tuuti may woykat yi ak Seattle. mbokk yi salaamaaleykum ñun ñëpp ñu bokk jàng fatiha ak salaat al fatihi مولاي صل وسلم في كل ما زال يلقاكم في كل مترك حتى عتوا بالقانا رحمن على وطني مولاي صلي وسلم دائما ابدا أسلا أسأل دماء العقبان والرحم أنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على في كل حمد الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي أتر العروم أنا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على خلقي كلهم أنما الدين ضيف حل ساعتهم بكل عرف إلى لحم عدا قريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على سن فوق سابعات يرمي بموج من الأبوال ملتقم مولا صل وسلم دائما أبدا على أبيك خير الخلق كلهم من كل منتدى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 مغزولة أبدا منهم بخير آب وخير بال ولم تيتم ولم تئم أنا مولا صل وسلم دائما أبدا على كلهم هم الجبال فسال عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم مولاي صل وسلم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 شاكسين إلههم فيما تميزهم والورد يمتاز بسيما من السلام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق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 الأصوات إن تلقاه الأسد في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 أحل أمته في حرزي من أجي كالليث علم على الأشبال في أجمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على قبلي كم جدانت كلمات الله من جديل فيه وكم خصم البرهان من خصيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلف كل كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على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 الخلق كلهم يا ربي صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكر مولاي صل وسلم صلي ربي على نهدي وشيعتي وصحبه من لطي الدين قد نشفرا وجادوا معا في الله واجتادوا وهاجروا وله قد نصرا يسلون واعتصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون ري النسر العطير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 العصا والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والبحر المدر مولاي سلم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وزني مزاقي للجبال كما يليق قطر جميع الماء والمطر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي الخلق كلهم وعد محبتي الأشجار من ورق وكل عرب غدا يطلع ويصبح مستطر مولاي صل وسلم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 سام الذي شرب بالنبيون والأملاك وافتخر وعد ما كان في الأقوال حسنا وما يكون إلا ومعاذ صورا في كل طرفة عين يطلبون بها أهل السماء كل من السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على كله ما عدم الله موجودا وأوجدا معدوم صلاة دواما ليس تنعسرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق تسليم ما دام الله موجودا وأوجد معدوم صلاة دواما ليس تنعسر مولاي صل وسلم دائما أبدا على في كل ما أعدم الله موجودا وأوجدا من معدوم صلاة دواما ليس تنعسر مولاي صل وسلم دائما أبدا على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 أحسن خلقي كلهم وأدى أدعى ما قد مر من عدد ماضي بأضعابي أمل القدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على من خلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمتنا أن نصلي أنت مقتدرا مع السلام كما قد مر من عددين ربي ودائمهما فضل منتشرا وكل ذلك مضرب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا مولاي صل وسلم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 للخلق كلهم والهم عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر مولاي صلي وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديه صبح الحجر مولاي صل وسلم دائما ابدا الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بار ليس ينعسر مولاي صل وسلم دائما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 مولا صل وسلم دائما ابدا خير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بالأهوال تنحصر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزل مدعي صورا ثم الصلاة على مختار ما طلعت شمس النار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفتي من قام من بعدي التصيرا وعن أبي حفص لي الفاروق صاحبي من قول المسلوب في أحكامه خير الخلق كلهم وجد لي عثمان ذي نورين ملكا مهلت وجد لي عثمان ذي نورين ملكا مهلت وجد لي عثمان ذي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 العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن والآل والصعب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدلاجي أو بنى السعر مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم ثم ارضى عن شيخنا تجان قدوتي شيخ المشايخ يا طوبى له مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي خلق كل ثم ارضى عن شيخنا تجان قدوتي شريف شيخ المشايخ يا طوبى لنا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 فصلهم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبدي نجلي عثمان الذي انتشر في طريقته يا عبد الوهدر مولاي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 ثاني يا إلهي واجزي أنا أبدا عنا محمدا المختار بالقدم وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا عنا صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار للغنم وصلي على إلهي واجزينا أبدا عنا محمدا المختار بذقي دمي وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم فاتحة كن كن نجانغ فاتحة المختار في القدم أن محمدنا المختار في القدم عنا محمدنا المختار في القدم عنا محمدنا المختار في القدم فاتحة صلاة كن كنا نجàng فاتحة ak benn per صلاة الفاتحة ñu def ko xëy di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla yal nañu yàlla may ñu àggale jàmm ci daraje yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may leen xaj Bachir Ngom mu ñëw wasalli an ya ilahi wajzi an abadan anna المختار في القنان بضمير آمنا من عظيما قائما فزيعا وقيل إن صدقت رؤيانا فابتسمي وصلي يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدنا مختار في القدم السبع لا يخرجن إلهي منك من تبع له الخلائق من الجن ومن هذا مدنا وصل لنا إلهي منك فنتبع وعلى الخلائق بالجل ومننا مصطفى لا يخرجن إلهي منك من تبيع له الخلائق من جن ومن ناس مولانا لا يخرجن إلهي كمن تبعني له الخلائق من جل ومن نسب لأخرجنك إلهي منك من تبعني له الخلائق من جن ومن زمين الصلاة يخرج لا إله منك بل تبيع له الخلائق من جن ومن نسب jërëjëf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 شكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك جل ثناؤك جل ثناؤك يا رحمن يا الله لا أحصين الثناء عليك أنت كما ربي على النفس قد أذنيت يا الله Yeah. ngi ñaan ci biti ñoom laay biti biti kàddu yi waaye ñeneen kàddu yi moom biti biti ci kàddu yi. وصل اللهم وسلم واكرم وارض وارحم وبارك على اشرف الخلق حبيب ربه سيد رسله امام انبيائه مظهر لطفه عين رحمته سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن السر المحتوم والقطب المكتوم مولاي من ربى بلا خلوة أصحابه علنا حتى استقاموا فيا لله منحاه الحمد لله هذا الشيخ رباه خير البرية la xayrul wujudi alladi alaahu mawlaahu radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa radiyallahu taala an man allama al awliya wa faqaha al aarifin wa rabba al fuqaha مولاي الشيخ وسيدي سندي حبيبي روحي قوتي محل قلبي مولاي الشيخ سيدي الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا الله تعالى ببركاته اللهم زده تشريفا وتكريما والتع... اللهم افت عليه بحور فضلك ومنك وكرمك واحسانك اللهم زده تشريفا وتكريما وتعظيما وتفخيما ومهابة وفيضا وقبولا ورفعة وارتفاعا وعلوا واعتلاء وعزا واعتزازا وفخرا وافتخارا في الملأ الأعلى وفي جميع الحضرات اللهم رقيه في درجات قربك إلى ما لا نهاية له يا رب العالمين تحياتي إلى مولاي الصديق العتيق مولاي الشيخ سيدي أبي بكر ابن العارف بالله مولاي الشيخ الحاج محمد المنصور فدعواتي له تتحول وتتجدد بل تنصرف إلى دعوات دعوات ليمن الله علينا وعليه أن يمد عمره ويبارك في صحته وأن يجدد نشاطه بحرمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يفيد ذلك كل على إخوانه ابتداء من مولاي مولاي شيخي وسيدي مولاي الشيخ الحاج مالك انت العارف بالله مولاي الشيخ الحاج عبد العزيز السي رضي الله تعالى عنه واخوانه مولاي الشيخ سيدي ابي بكر العتيق الصديق مولاي الشيخ الحاج منصور وجميع أنجال مولاي الشيخ الحاج مالك سي وجميع أتباعه وجميع مريديه وجميع أحبابه اللهم عد لي منهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وأستسمح أن أنقل تحياتي وزياراتي إلى خليفة مولانا الشيخ الحاج روحان قمر رضي الله تعالى عنه مولاي شيخي سيدي الحاج عثمان قمر الله يحفظه ويمد في عمري ويبارك في صحتي وعن كا ولكافة الأحباب وكافة المسلمين وكافة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi xam naa lu gàtt lay doon waaye ak jàngat rek la jàngat la mooy Mawlaay Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu dafa taalif ab téere tudde ko gàmmu te téere boobu rek la tudde gàmmu téere li mu tudde gàmmu moo gën a neex ci téere mi téere mi mu taalif yépp bi ci gën a neex bi ci dàq bi nga xam ne moom wax na sax ni ku koy way yëngatu yëg cee yëngatu yàlla dara loo ko baal fa ma xarajun alayya dox ko ci beneen téere kon xam ngeen téere bu neex la muy riyu samaan riyu samaan mawlaaya cheikh alxaaji malik si radiallahu taala anhu bi mu koy taalif dafa mel na daf ko def ñaari xaaj xaaj bu jëkk bi moom la ñuy wax tajrid am na beneen tur buñ koy wax waaye moom du ma ca jaar mooy xasal Cheikhul Xaaji Malik la mu doon def du du xasal mais tajrid la dafa jël ñaari nit kenn ka xëy na Demba la tudd wala Samba waaye ka ci des moom daad la tudd te loola Mawlaaya Cheikhul Xaaji Malik da ci tëgg tëggin woo xam ni danaa la wax ni. dafa am yaqiniyaati salaas yu ko jiitu woon al yaqin al al yaqin al ibrahimi alayhi salaam wal yaqin al ghazali wal yaqin al descartes yaqin maam ibrahima alayhi salaam daañ ko gis léegi insha allahu taala ca wa kadalika nuri ibrahima malakut malakut alsamawati wal ard ma yaqinu ghazali daañ ko mën natti ca inqaadu al munqid min al dalal amma yaqin a Descartes daañu ko mën a gis ci taamulaat a Descartes Mawlana Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu ci manhaj bu muy waxe lu jiitu muy àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa meloon na ku doon tabax ak kër jiital tabax ak miir miir ba nag mu def ca la mu ci am lépp ba yëg ni miir bi du daanu mukk yëg ni miir bi kenn mënu ko jaaree ci kaw kenn mënu ko jaare ci suuf kenn mënu ko bënn mu wutal ko ay xomba yoo xamante ni kenn mënu ko ubbi mu jël ko takk ka tëj ci ndiggam soo koy téye miir boobu nag mooy bunte bii nga xam ni moom la Masamba wala Mademba sëq ak daat euh, donte le maam Ibrahima bokkul ak Ghazali donte lee Ghazali ut bokkul ak Descartes donte lee Cheikhul Xaaji Malik ca ñaar ñu jiitu ñoom lay tibbee ci maam Ibrahima alayhi salaam dafa tàmbalee ci wa kadalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard noonu nag laa wane Ibrahima sekkare ak i teraanga ak i sulta ak i man-man ak i sañ-sañ yi nga xam ni def naa ko ci asamaan ak suuf boo déggee lii nga xamante ni mu ngi koy bëgg wax kon da wax ni maam Ibrahima yii muy bëgg a wax du ay ngëb ngëbam waaye gëstu la mu ne la tax mu ne wala na min al muqinin yaqin boobu mooy al yaqin ak al ibrahimi donc euh, dañuy mën jàppandikoon ñetti yàq ñeenti yaqin wala ñetti yaqin jiitu na Cheikh Alhaaji Malik mu ñëw ñeenteel leen te yaqinu maam Ibrahima bi ci lay nekkee diin al xanif ba léegi muy tabax boo xam ne mabbul ba képp kuy yonent boo ñëwee ci gannaama ci nga toog wa ni taba mi wa ni ibrahima hanifa bu ko defee wali yakuna min al muqinin falamma janna alayhi layl raa kawkaba fa qaala hada rabbi ndax ab yonent boo xam ni yàlla defal na ko isma taataan ko te depuis mu bind maam Adama alayhi salaam wa sax waxal ni wa innahu id arada allahu nashatana abana min nuurihi nuuran rabbil alamin la commencé woon di tànn yonente yi nga xam ne ñooy dem ci kaw suuf si di woote kooku ñu tànn booba te muy maamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di maamu jami al ku wax ne mi ngi bokkaaleeg yàlla xamu déedéet dafa doon gëstu mooy albaxsh albaxth yaqin li mu bëggoon àgg mooy la li ñuy wax Euh, euh, la vérité absolue maanaam dëgg gi nga xamante ni bis bu ko xay xasee téye dootul seet ni ñuul la wala weex na xam na ni weex na tal te dootul ñuul ba mukk mooy li yakuna min al moo tax bi mu gisee bitéew bi ci xaaja guddi gi mu ne ah hada rabbi kii mooy sama borom waaye falama afala qaala laa uhibbu al man ki ma war nekk sama borom war nekk sama kilifa di bind war ma xisaab ëllëg bu nekk kuy fenk di fenk di mu daal boobu dàqu loolu di nga ko gis ci mbooleem ñett ñi ma tudd ni ñu def bi si topp mu ni falamma raa raa ash-shamsa baazighan qaala hada rabbi mu gis jant bi ak taaram leeram hëy ba bi mu yore mu ne aha sama borooma dégg falammaa ra'a al-qamara baazighan qaala haadaa rabbii bu mu demee gis jant bi mu ni ak kii li mu amee ci leer rek ni mu tabee ni mu baaxe ni muy joxe ay leer haadaa rabbii weer yu mooy sama borom falammaa afala qaala la in lam yahdinii rabbii la akuunanna min al-qawmi as-saalihiin falammaa ra'a ash-shamsa baazighan qaala haadaa rabbii bu mu demee ba gis jant bi ni rëyaayu jant bi ak ni mu toll kii mooy sama borom فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من المشركين بريء مما تشركون yàlla maa ngi yëg ni lii yéen a doon bokkaaleeg ñoom dama leen doon wan ni ñii matuñu yàlla ndax hunaaka ñoo xam ni jant bi mooy seen borom am na ñoo xam ni weer wi la ñuy jaamu am na ñoo xam ni biddéew wi lañuy ñuy jaamu moom Ibrahima bu gën leen wan nag ni kii yii matuñu yàlla ndax ay bindeef lañu moo tax mu ni yaa qawmi inni bari'un mimma tushriku mu daal di taxaw nag taxawaayam bu sell boobale ni inni wajjahtu wajhi lilladi fatara samawati wal ard xanifan wa ana min al mushrikin yaqin bi mu àgg mooy képp ko xam ne njabootam la woon mu koy woo di ko teg ci siraatal mustaqim wan na ko ni benn kilifa benn borom benn sultaan benn allah moo am ci adduna bi moo am ci alaxira keneen mënul am beneen loolu moo yàq ni ma Ibrahima képp kum ca woo da nga dem ab pas-pas mu dëgër mel na ku ñu tàbbal ci kër googu ñu doon wax ni moom lañ doon tabax euh, Ghazali imaam al-Ghazali radiyallahu taala anhu moom bi mu ñëwee ngeen xool nag nii may wax ci Ghazali man ko ko waxee ci Descartes lu tax Ghazali mi ngi gane àdduna euh, junni at ak juróomi téeméer décarte mi ngi gane àdduna junni at ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn kon xame màggee na ko lu dem ci daanaka juróomi téeméeri at waaye li Ghazali doon wax jóge ci tomb bi dem ca tomb bee jóge ci tomb bi dem ca tomb bee mooy lépp loo xam ne Ghazali euh, décarte wax na ko gannaawam ba tax na borom xam-xam yi dañu ni ndax décarte dafa gis téere Ghazali yi ñu traduire. mu liir ko dal di ci teg man hëjam mën naa nekk walla xëy na yàlla moo ko baaxee loola man naa ne parce que li nit ñi jàngatoogul xamaguñ ko mooy Descartes suufi la woon te xam itamit chrétien la woon maanaam du woon ko weddi yàlla waaye nag tabax na tabax boo xam ni dafa mujj weddi yàlla parce que dafa tëral aw yoon woo xam ni xel bu ci jaaree daf koy doy sëkk te xel bu doyee yàlla dootul am place waaye li mu tabaxoon ba léegi tubaab yi ci la ñuy nekk lu jëkk ci imaamul Ghazali radiallahu taala anhu euh, mooy mbir bala nga ci mooy lañ bëtal ba yëg ni lenn lu ñuy sikki sàkk amu ci looy dugg na leer bala nga ciy dugg loolu yi mu ni ko naa dajale mboolem li ma xam imaamul Ghazali li mu jëkk a def mooy li mu xamoon lépp li muy gis lépp li mu jëkk a def mooy daal ñëw xool bët ni bët bis bu nekk mu wan ma loo xam ni ba ma ko lëñbëtee amul boo taxawee ci suuf boo séenee avion muy naaw ci kaw asamaaw dangay mel na day mel na am picc bët moo la wax ni lee ñii la tuute waaye ka dem fexe ba gis avion fi mu gaare mu xool ko dana xam ni kii dafa naaw kawe waaye tolluwul nii mu toll ci kaw asamaaw kon bët wax na ko loo xam ni du dëgg noonoo tam bakkan léeg mu xeeñ la xeeñtu xeeñtu la xet goo xam ni boo ko toppatoo moo gëmul a doon xeeñtu te genn gee bokkul kon am na problème mu ñëw ci làmmiñ yëg ni léeg-léeg mu saftu loo xam ni bu li ko waral xëy na wéradi la xëy na leneen la waaye yëg na ni lii baaxul neexul mu soog a ñëw ci loxo léeg mu làmb yëg ni dafa tàng fekk dafa sedd guy léeg-léeg nga gis ko tàng jir jamonoy tàngaay ñëpp a ñaq moom mu ni dafa liw nañ ko sàng ay mbàcc yooyu yëpp li koy kii mooy alxawaasil xamsa les cent les cent les cent maanaam yi nga xam ne moom la nit di yëge te ñoom muy Ghazali muy Descartes mi waxoon ñoom ñëpp gëstu nañu yëg ni yii ñuy gis ci doomu aadama mu di ko joxe nan lii mooy dëgg moom nu mi koy joxe wax na safar ñu ni kon dootuñu mën sukkandiku kenn ci ñoom moo tax imaamul Ghazali ci la defoon gëstu yu yooyu daal di wax ni lépp lu ma xamoon rek danaa ko tegaat ci suuf Descartes bi nga xamante ni mi ngi toll di gëstu li nga xam ni moom la ñuy wax xam-xamu chimie yeeg xam-xamu médical yeeg yépp daf ko mujj teg ci suuf ni ñi ko doon wax mën na am ci ay naxe mbaay lañu lañu lañu doon wéy yooyu boo ko toppee ba mu jeex ci ngay ni ci la maam Cheikh El Hadj Malick mel na dafay dem ci yaqiniyaat al ibrahimiya ñëw ci al yaqiniyaat al ghazaliya ñëw ci Descartes euh, ci euh, riu samaan daad mi nga xam ne Cheikh El Hadj Malick jël ko ala yaa daad way xaki xootal baatu nëbbi nii moom la jiital annaba yaxtalifu anil xabar xabar mooy xabaar yu ndaw nii rek amma yatasaaluuna anil naba il azim du xabar naba la naba mooy loo xam ne bu ñu nekk tëj rek ñëpp kenn daw foogu ko woon te ku ko dégg daw cheikhul xaaji malik radiallahu taala anhu ndaw la mu yónne woon ni ko nabbi ini alaa ya daadu way xaki nabbi i nii li dikril baani tahtaanil uyuni ndax garab gu ñuy wax baan ña fa nekkoon ak garab ga moo tax rek sa rangoñ yi mën di dotti rek bañ a dal baan ak daad boo leen seetee daad mi boo ko seet bi may dem di xool lan la borom xam-xam yi wax ci baatu daad fekk naa ñu ràngal ko lu ëpp fanweeri mbir yoo xam ni benn bu ci nekk jar na jàngat daat nañu jigéen la joo xam ni ku am fulla la dafa am pas dafa rëy dafa am saqaafa maanaam dafa cultivé daat dafa bëgg a sañse daat bis mu nattee mbir ba ni feelaa jëm kenn mënul teemu jëm fa bu àdduna dul xarit dafay dem daat wax na nañu ñoom ni dafa bëgg fu mu nekk rek mooy buur mooy bommi maanaam du bàyyi kenn dominer ko waaye dafa bëgg dominer ñëpp daat boppam yi rek lay yëg maanaam dafa égoïste koy anaani maanaam moom boppam la yëg daad mii cheikhul xaaji malik radiallahu taala anhu de wax nag muy adduna jublu ci keneen ku dul adduna adduna la jël ma sàmba wala ma demba ne ko kaay ma yónni la ci moom laaj ko ba xam bu ko defee boom kon loolu mooy euh, commencement wax ji mu daal di ñëw ci baan baan ndeke kat mooy saab-saab mii mooy nebedaay bu mooy moringa moringa moom nag mooy mooy baan baan moomu nag dana faj ñetti téeméeri feebar ñetti téeméeri feebar boo demee ci ñiy gëstu ci diggante albaan ak daat da nga fekke ni wax nañ ci lii ci baan dama xamul mam booy laa ilaha illa xam-xamam boobu nga xam ni daanaka dafa ndar kàpp luy xam dafay ndar ngàpp luy maarifa nan nan la jël xam-xam yoo xam ne tey xam-xam ñu ngi soog a am maanaam nit ñi ñoo ngi soog a xam ne baan njëriñ yi waaw nit ñi ñoo ngi sax soo ko xam boo demee Arabie Saoudite léegi ñoo ngi koy def ay tool di ko jëmbat ay garab ndax nit ñu liñ ci gis ci ay njariñ gis ñu ko ci geneen garab kon loo masoon gis ci daat ba jàpp ni ay karité la yu mag yoo xamante ni kenn mënu ko natt boo ñëwee ci ba da nga ñëw ci bànd ki fekk lool kon maam booy buñ ko ci booleet bokku ci radiallahu taala muñ ko ci booleet bokku ci gannaaw loola mu am ay maraaxil maanaam dafa def ay étape ànd ak daat di ko laaj bu mujj mu yëg ni na ko seetlu mu gis ci moom ay jukko yoo xam ni du jukkoy àndandoo mu daj ci lu nekk daj ci lu nekk ba àgg cax sax ni sonal na ma ba sax man na feebar ànd ak moom daad nit la koo xam ni dañuy wax jigéen la joo xam ni day am yaram ba pare buy dox bu yëkkatee tànk bala mu koy teg ci beneen xelam ak xalaatam jiitu na loola loolu mooy adduna adduna mën loo fexe ba du la mëdd doon xalaat nag nii gannaaw ñoo ngi gàmmu si ku gàmmu si dinañ koo jàngal mu tabax miiram miir booba fa lay tàbbal pas-pasam ci diine fa lay tàbbal pas-pasam ci tariqa fa lay tàggal pas-pasam ci mbokk gi fa lay tàbbal pas-pasam ci àndandoo yi fa lay tàbbal pas-pasam ci liggéey ak am jom daandika loolu bu fekkonte ni yaa ngi gëstu mbirum euh, tàmbali gi daanaka foofu la lay ay bunte yoo xam ni di nga ci gis ay kéemaan yu rëy a ànd ak Mawlaay Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu téere bi comme niñ ko waxee woon nii dafa ni dama koy taalif mu nekk téere gàmm maanaam riji samaan fi matxi sayidi bani adnan al matx mooy gàmm mawlid mooy gàmm matx mooy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne bani adnan yépp mooy seen sang defar ko lu yéeme nag ndax moom maam booy radiallahu taala dafay nekk jàngalekat dafa ne dama fi indi ay baat yu bari yoo xam ni dañu niroo te bokkuñu dañu niroo te bokkuñu ñaata diin moo fi nekk te benn bokkul ak sa morom ñaata uyuun moo fi nekk te bokkuñu sa kenn bokku ci ak sa morom dafa bari mu ni leen na dong moo tax ma def ko kii jàng na ko xam kon nag loolu daara ji Mawlaay Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu nee na boo tafoo ci man jàngal nee na lu jëkk li ma defar mooy yow ndaw na nga fexe ba jàng waaw da ko def alfaz gariba nafa allahu biha uh, ci qaamuus lu tax mu def ko naf li nafi al mubtadiin ñu commencé jàng nee na dama bëgg ñu jàng jàngit woo xam ni xaw ma baat bi boo jógee ci daara ji di ko wax wa tadkirati muntahin ñi jàng bu ñu yëg ni boroom xam-xam lañu bu ñu jógee ci daara ji di jàngale naan baat bi xaw ma ko lan moo taxoon Mawlaaya Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu bi muy jàng benn téere mu jàngi ko Kajoor jàngi ko Waalo jàngi ko Fuuta fu nekk mu jàng fa benn téere boobu jàng na fa Laxdari yu nangami yoon asmaa yu ñaata yoon yooyu yëpp ndax xam na ni fii ci Tiwaawan ñëpp dañ ko fekk jàng si bi ñuy waxee bokkul moo tax dara jàngale ba mu jublu boo demee Kajoor nangam lañ koy waxee boo demee Saalum nangam lañ koy waxee boo demee Waalo nii lañ koy waxee yooyu yëpp mu bëggoon bu ko jëlee teg ko muy euh, dunduwaay di di di tedd joo xam ni du dem bàyyi ko rek yóbbaale ko kon yittey Mawlaay Cheikh El Hadj Malick si alaahimati ala himmati fajal ah, ala himmati gis nga fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran dara du ma tënk xurriya googu nekkul xurriya sociale maanaam Cheikhul Hadj Malick dund la ngeen xam ko maanaam amoon na xurriya maanaam liberté boo xam ne du tàllal kenn loxo amoon na xurriya économique dafa daan dundal jabootam li mu bay ñe fanweeri at ak ñett la bay lu mu demee màkk boo rek li mu amoon ci téere ci jamono yooyu kenn xamul na mu toll te lépp ñàkk jënd ko di dundal yaayam ba yaayam jóge fi muy soog a tàggu ne yaayam ba dem ndar ba njar ni ñëw yëpp ala himmati rek facal ilahi adiyatan li am surtout xurran xaalisan dama am ba mu bugg am euh, euh, ngor ngore goo xam ni dara du ko rax damay gor rek ci lépp ngor gu raxul dara kon euh, alaa ya daadu way xaki nabbi ini bi dicri lbaani tatanu tatanu luyuuni euh, xibaaluki euh, afi baynin xibaaluka am bi baynin li ushaaqin bi raamata xabiriini xam nga di ànd nit jekk mu jigéen ne ko sa pas-pas kër Cheikhul Hadj Malick na mu def baa yaa ngi ciy góorgóorlu moom ni ki dem ba yaakaar ni lu ci ba mu la ciy soñ war nga seetaat sa bopp la rek ñu ngi lay jàngal loolu nag waaw afi baynin xibaalu ko am bi baynin kóllëre gi doxoon sa digganteeg Mawlaay Cheikh El Hadj Malick ma foo ci toll yaa ngi ko jàpp nga ko ya ushaqin bi ramata xabirini ramata boo ko seetee mu ngi ci Palestine moo tax góor gi ku yéeme la tudd na baat ca baat bële na mu tuddati euh, naa la ko indi léegi baat baa ngi ca Madina Munawwara bu tey mu tudd baat boo xam ni place place boobu mu ngi ca Iraq réew yooyu mu tapp di ko dajalewaat lan la war a jariñ ki nga xam ne dafa war a xalaat ci dund Cheikh Al Hadj Malick fas yéene ko dundee. afi baynin xibaaluki am bi baynin li ushaqin bi raamata xabiri ni lay soog a andi jooju lay gis woon moom li muy laajte fii ak fële bokkul li muy laaj fële mooy li tax nga jooy ba meltu amatoo sago lu ko waral fii nag ma yow sa digganteeg sa mbokk ya fu mu toll wax ma nu mu toll ilaa ma tëliina tëliina bi kay qalbi bi naaril xubbi kayan gayrahu nii loolu mu gis ni ki mu àndal di ko wax mi ngi jël paaka di gor xol bi di ko ñaas ñaas yu méttee metti nga seet boot ki nga àndal yow li ëpp solo ci yow mooy sa xol li gën a yéeme mooy lii ba bala ngay àgg ci mata ma daana baxaru ki doo fa gis seexul xaaj ba fu mu tuddee bakkan sori xal li muy wax rek mooy xol bi xol bi la wax bëgg tey mu nekk ci biir miir bi ba loo taataan ci cheikh euh, cheikh si euh, ci sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga man ka coo def euh, da'i an ki taxannuja dallin muy waxaat àdduna soxna si dafa bari tiital dafa bari daraja wala ko tiital am jëmm di wane boppam mu ne ko yii yëpp day lor adama aadama waaw bi yazdaadu qalbi min futuni dag may fëtnaal sàmbaa ngi wax de wala dembaa ngi wax yaa ngi may dolli fitna ndax yii ngay def yëpp dafa loolu mooy ki bàyyee boppam ak àdduna dana ko sonal ci ay fit bu teye mu ne ko oto bu teye mu ne ko kër bu teye mu ne ko yeeseelal kër bu teye mu ne ko amal ñaari oto bu teye mu ne ko wutal ndànk lu nekk dana ko wutloo àdduna foofu dana la xeebloo du yem foofu dana la xeexloo du yem foofu dana la weranteloo adduna bu la xasee jiital jeex na loolu ma doon wax ni xam naa ci lay jéem a tëje ni miir boobu bi nga xamante ni jël na ko ba tabax ko ba wóolu ko ci lay soog wax nag ni sàmba waxal daad ni ka teqatlikoo ngeen àdduna ak alaxira tey li ñuy wax rupture absolue inqitaa al kulli yaag daad seen diggante jeex na tey daad mooy àdduna muy commencé nag lu tax mu tàqali ko adduna mu ti ko ni ko mata ma daana baxaru ki min ko duurin sët gis naa ni ay con ay contrainte rek ay stress rek ay jàqare rek ay njuumte rek ay kenn xamul la nga may dugal gannaaw yow da nga am dex wala géej goo xam ne dafa nëx seen naa fële ca wàll ga seen naa fa géej goo xam ne dafa sel fa saafin salsalun bahrul amin sallallahu alayhi wa loolu moo tax niir boobu nag mu Cheikhul Xaaji Malick ni mbokk yi kay leen ñu ànd tabbi ci miir bi ndax lu ñu wax ci Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam du ñu rëccati dañ koy dund dañ koy xam dañ koy jàpp dañ koy dund ba bala ñuy fekk Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu jaar ci ñëw nag ñaari téere mu mel na li mu doon wax ci diggante daat gannaaw sakk sakk na ko bu bunt bi sakk daat amatul yoon ci yow moonatul am fu mu jaar ci yow ndax yaa ngi ci biir miir bi yow itam mënatoo génn yëg nga ni mënatoo génn yaa ci biir miir bi mu daal di indi ñaari téere bu njëkk mooy zajarul xulub li li doy waar mooy ñaar yëpp mi nga jeexale yàq fi ñaar yëpp inna nazma fa nazmi yàq fii ñaar yëpp fii la ko jëlal kon nit ci bëggoon wax mooy gannaaw boo xamante ni nit ki tàbbi ci biir euh, mbalka wala ci biir miir boobu ci biir wërngal boobu Cheikhul Hadj Mahi dafa mel ne dafa jël zañal xulu ni ko am kii mooy sa programme dil dunde nii jekki mu mu jëlati beneen téere muy wala tarka nan na xibbi daari fanaay wax naa la adduna dama dama dama dama def amaliya li ñuy wax pratique dama la ko defal yàgg mbokk moo xam ni mooy sàmb wala demb ba nga yëg ni kii baaxul ba ma yëg ni la bàyyi ko nga bàyyi ko mu dugal ci géej géej googu géej gu sell la jox naa la programme muy zajar xulub na fexe bu dund maani yi ci nekk axlaaq yi ci nekk yaqiniyaat yi ci nekk su boobaa da nekk fii buxbuxatin nuuraaniyatin adimatin xatira mooy lan gannaaw tënk ko ci li nga xam ni mooy zajarul xulub xolal zajarul xulub mooy xol bi bu demee bay bugg laal àdduna rek am na lu koy nit eh mu tëb buy bugg laal ñu koy xanaa da nga dof am na lu ci nekk ci peggam di ko tiital di ko jàjj di ko wanuw yoon loolu mooy zajarul xulub moo tax boo jàngee nuune ya ba ak si fii day rafet nga dem jàngi zajarul xulub dafay rafet nga dem jàngi wala tarkananna xibbi li daaril fadaai fa taxsara fi daarayni duuna bi ray غرور وخفلة على ذكر إلا لدار البقاء نحن ركونك ركونك دودي بدنيا غرور وغفلة gannaaw joxoon naa la daat ni mooy àdduna te nii la mel nga xëy xëy jàng jabati ci moom fexe nga ba yéeg miir bi ba dem kon ñaar dal na la xaf am na la maanaam sakkan nga ba yéeg fekki daat dem nga itamit daat sànk na la ndax war na la wala taxurannakum alxayaatu dunia wala taxurannakum billahi wala yaxurannakum billahi alxarur inna cheytaana lakum adu bu ko defee kon même baatu seytaane yi doo ko gis ci fii parce que moom li mu bëggoon mooy defar mbalka mi rek ba nit ki xam àdduna ku xam àdduna xam seytaane yi ndax mi ngi lay wax ci biir zajarul qulub ni la ala xubbuha rasul ah xataaya jamian fexe bu bugg àdduna mooy lépp luy bon bon mi ngi ci yow dénkit ala innama al umuru ala inna al xuyura fi taqwa du loolu la waxoon de déet ca sajil xurub ah waaw alayka tuqa fa inna alxuyura jamiaha tadammanatha inna taqiyi najibu taqwa min al ittiqa wal ittiqa huwa tajannub moo tax ku ragal yàlla day ragal gàcce day ragal torox toroxte day ragal ku ko xeeb day ragal ku ko tugal bala muy daata ragal safaraak la ci aju ndiñu téem lay jëkk ragal ku ko xos waaw moo tax mu ni ragal yàlla ci la lépp luy baax tàbbi bu ko defee kon ca noona nag lay soog a wax ni kon nag tàbbal naa la ci baxru baxru baxru taqi muy sayyidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaw mata daana بحرك من كدور فصاف سلسل بحر أمين li nga doon natt ci daat du mooy war wala déet war moo gënoon fés ci mbiram kii baxru bi ki ci nekk di lijjanti di dawal gaal yi ñoo ko al amin ku gore ku tedd ku yiw ku dëgg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala إلهي توبة حقا من هو